ومنزل الشفاء والدواء حمدا لمنزل الأنام bi sëy ba dina doon imaji ndox me ñuy wër suuf si sédde niir yi naaw mag yow di waxi neen naa ubbi sëy ba dina doon imaji ndox me ñuy wër suuf si sédde niir yi naaw mag yow di waxi neen laa doon seet yow rek na woo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 mbokk jullit nii gannaaw ba ñu sante suñu borom tabaaraka wa ñu ngi tàmbaliwaat suñu waxtaan ak yéen di ko def ak waa Medina TV di ko def fii ci daara El Hadji Abdou Koña Sall rue 27 angle 24 seen mbokk seen xarit ñu gën ko xam ci Momar Seck di Oustaz Secka mooy def seen waxtaan ak yéen mbokk yi di fàttali sunu bopp di leen fàttali topp yàlla ak ragal yàlla subhaanahu wa taala mbokk sunu waxtaan tey ñu ko teg ci jamono ji mbokk jullit nii gannaaw ba ñu sunu borom tabaaraka wa taala ma wax ne wa maa xalaqtul jinna wal bu du liya'buduni mu ne binduma jinne ak nit ci kaw suuf lu dul ñu jaamu ma kon ñun sunu mission ci kaw suuf mooy jaamu borom bi tabaaraka wa sunu waxtaan nag ñu ngi koy waxtaan teg ko ci ndaw réew mi ñu bàyyi xel ay waay mbokk yi nañu bàyyi xel àdduna àdduna day kër la boo xam ne këru mbasukaay la àdduna day war mbokk yi àdduna ku ko bàyyiwul dana la mës a bàyyi moom àdduna kon la yonent bi waxoon sallallahu alayhi wa sallam kun fi dunya ka annaka haribun aw abilu sabil suñu yonent bi sallallahu alayhi wa moo wax ne dundal ci àdduna mel ni kuñ fi yónni woon rek nga am loo jël te dem yonent bi sallallahu alayhi wa sallam delluwaat mu ne na nga dund mel ni ku fi dul jóg mbokk yi mu mel ni loolu mi ngi aajoo ci ne mën nga fi am ay kër am fi oto am fi ay mbubb yow moomu dafa mel ni doo fi jóg waaye na ngay bàyyi xel jóg dana ma sa am mbokk ñuy bàyyi xel suñu borom di dénku ndaw ñi surtout ci wàllu njàng mi mbokk yi nañu jàpp suñ ne ñu jàppale njaboot gi yar njaboot gi tarbiya leen ndax yonent bi sallallahu alayhi wa sallam moo wax ne alqayaau nizaamul iman isa lam tastai fastahma siita yonent bi nee na sallallahu alayhi wa sallam kersa mooy péyi waaye boo amulee kersa fastahma siita mu ne defal lu la neex waaye mbokk yi na yëg ne saa soo defee lu la neex yëgal ne sunu borom tabaraka wa taala moom dana def lekk ko neex mbokk yi mu mel ni ñu ngi toll ci wàllu njàng ak njàngale di njàngal sunu njaboot yi mbokk yi tarbiya ak yar ak kers moo war ci xale yi mag mi dafa wax ne wan ma say ndaw tey ma wax la say magu ëllëg mbokk yi mu mel ni tarbiya boobu ci xale yi yar gi ci xale yi des na nañu góorgóorlu ci njaboot gi nañu bàyyi xel sunu borom tabaaraka wa taala mu ne man fan la ñu war a tàmbali yar ndax yonent bi sallallahu alayhi benn waay ñëw na ci moom ne ko dama am doom bëgg ko yar mu ne ko doom jooju ñaataat la am yonent bi ne ko am na fukki at ak lu teg mu ne ko yonent bi ne ko kooku mënatoo ko yar waa ji amaat doom ñu tudd ko mu indil yonent bi yonent bi ne ko kooku ñu ko yar waa ji amaat doom ñetteeli yoon balaa ñu koy tudd mu daw ci yonent bi yonent bi ne ko kooku mënuñu ko yar waa ji delluwaat ne ko kon kan la yar mu ne ko da ngay tànnal xale bi nday ju baax xale bi ndey ji tam tànnal doomam baay bu baax ñu ne kon nag góor gi moo yor doomam ci ndiggam di wër anikal la koy dénk mbokk yi kenn amul doom yàlla sunu borom mooy dénkaane bu la yàlla boolee ci ñi mu dénk doom ni doom na nga góorgóorlu tarbiye ko yar ko te yar bi gën mooy yaru lislaam mbokk jullit ni yar bi gën mooy yaru lislaam jàngal sa doom alquran yóbbu ci daara ja te bañ ko boole ci jamonoy tey jamonoy tey jàpp nañu ne daara daal day ibbi xale rek bu ko weesoo wees na da dégg ci jamono koo xam ne day wax naan sama doom ji day dama bëgg mu njëkkee daara ngir xelam ibbeeku ma jël yóbbul nasaraan bi e mbokk kii ku juum la na jàpp ne daara kon du ibbikaay daara dafa ñëw pour yar daara dafa ñëw pour jàngal nit ki àdduna ak laaxira mu mel ni nañu góorgóorlu ci njaboot gi ci yar googu tarbiya bi wax naa ne yar gi mi ngi tàmbalee ci tàmbali tànn ba ba fi ñu mën a toll waaye jamono ngi nii mbokk yi jamono gu lëj jamono gu doy waar foofu la ñu toll mbokk yi jamono ji ani lan moo ko lëjal mooy poñetu àdduna bi ñu jël jiital ko yaruñu suñu njaboot xirtal leen ci alal ci ut mbokk yi gis nañu ci jamono ji li fi xew mooy kenn ku nekk yaa ngi uti kenn ku nekk na amee ba tax na suñu njaboot ñii ñi ngi daw dem songi géej gi ñii ñi ngi daw songi gaal yi ñii daal di dem tey la seen jaay seen i bakken dee ci àll bi mbokk jullit ñi nañu góor góorlu ndax nit ut na alal alal ga jëriñu ko ndax bokk ci ñi nga xam ne maa ana animalia am na ñoo xam ne keroog yomal qiyaam ña naan yàlla riccu nañu sunu am gii nga xam ne amoon nañ ko riccu nañu sunu dund yàlla lii ñu amoon riccu nañ ko te yonent bi wax na laa tasaalu qadama abdi xatta yusalu an arbain jaam bi day du jéggu yomal qiyaam te duñu ko laaj ñeenti laaj an umri fii ma afnaa danañ la laaj sa dund naka nga ko dundee wa an jasadi fi ma ablaaw nan nga màggatalee sa ndaw wa an ilmihi fi ma amila fii xam-xam bi nga jàngoon ani ban xam-xam nga jàng ani lu mu la jëliñun mbokk yi bu mujj mu wax la ko wa an maalihi min ayna iktasabahu wa fi ma anfahu sunu borom tabaraka wa taala dina la laaj sa alal gi nga am ani naka nga ko amee fan nga ko jëlee ak alal googu mbokk yi fan nga ko dugal mu mel ni kon léeg-léeg nit ki daw ngir uti waaye est-ce que dana jëriñoo la may uti mbokk jullit ñi kii di rëccu yomal qiyaam naan alal gi ma amoon yàlla rëccu naa lu tax ma amoon alal ndax alal gi yàlla mayoon nga ma ko amoon naa ko waaye defuma ko ci lu ci lu la neex mbokk yi am alal ñàkk yàlla ñàkk alal am yàllaa ko gën mu mel ni kon foofee la ñu war a góorgóorlu taxaw sunu njaboot tarbiye ci wàllu diine ci wàllu yar ci wàllu àdduna mbokk jullit ñi àdduna baa ngoog nit ñi dañu mel ni ko tasaaroo la yàlla waxoon kal farasil mabsuus mu ne keroog yomal qiyaam nit ñi dañuy mel ni ay lëppaalëb yu tasaaroo bi kenn ku nekk yaa ngi daw di uti kenn ku nekk yaa ngi daw di ami waaw amin nga ak utin nga nañu xool na sell pour ko bu ñu demee suñu borom yàlla mën ñu dettal mbokk yi nit génn na kenn këram tàggu njabootam maa nga dem mbokk yi dem googu mu tàggoo njabootam sunu borom moo xam bëri na ku génn tàggu dem buy dellusiwaat dañ lay nettali ne rek diw dey génn na àdduna yaakaarul woon ne day dem des fa waaye yaakaaroon na ne su génnee dana dellusiwaat waaye kon na xëy isa sabata fala tantasirul masaa yonent bi nee na boo xëyee suba ngoon gi na nga jàpp ne ngoonu yàlla la sunu borom tabaaraka wa lu ne mën na koo xewal ci ngoon gi kon jullit bi dafay gëm yàlla tat koo ragal yàlla ndax sunu borom moo ñu moom mbokk yi adduna baa ngoog adduna bii nga xam ne yonent bi wax ne dund leen ci adduna jaamu fi seen boroom balaa ngeen di delluwaat ci yàlla subhanahu wa ñu bëgg ndaw ñi jàppale ndaw ñi ci seen wàllu diine si seen wàllu yar si seen tarbiya bu ko defee ëllëg ñu doon ay mag yoo xam ne dañuy tekk ci réew mi ñu doon ay mag ñoo xam ne ay référence lañuy doon référence nag mooy nit koo xam ne saa yoo ko xoolee nañu bañ a bokk ndax waajur lan mooy dalal xale waajur mooy bu déggee ñu ne wupp saa tey moo xam ne sama doom bokk ci lan mooy dalu xale waajur mu toog ñu monete ay xale mu ne man day samay doom bokk ci ni ñu monete kon lii day dalal xel waajur lii day dalal xel waajur waaye waajur bu bëgg nag sa xel dale nii na nga jéem a jàppale sa njaboot teg leen ci cadre jaamu yàlla ba bañuy fekk sunu borom tabaaraka wa taala mbokk jullit ñi nañu bàyyi xel yàlla te dimbalante sunu biir te jàppalante sunu biir mu mel ni àdduna bii ñu nekk tey àdduna bu day waar la kenn ku nekk ma ngay kër kër yi kenn ku nekk ma ngay daw sunu borom la moo waxoon ci aaya ba alhakumu takasuru hatta zurtumul maqabira du ngeen daj di kër kër yi lu ne ngeen kur ba xëy ñibbi bàmmeel te waaju ñu leen waajulu leen bàmmeel mu mel ni mbokk jullit ñi foofu lañu ñu toll tey réew moo xam ne mbokk yi ñu woote ñun ñëpp ay jullit lañu waaye réew moo xam ne kenn bëlul kersa sa morom kenn ku nekk loo xam ci sa moroom luy safaan ba nga bëgg ko ko teel mbokk yi moom réew yal na yàlla musal ci loolu yal na yàlla taxaw ñu def ñu ay dëgg-dëgg julit mbokk yi dañuy bàyyi xel sunu borom tabaraka ko taala ca aayam bu yéema bii yàlla nee na ma ngay wax ëllëg yawmal qiyaam bu nit ñi dajee ca kanamu borom bi tabaraka ko taala ma ngay wax ak ñoom ña nga xam ne yàlla nattu na leen mooy que texewuñu ña nga jëm ca safara yàlla subhanahu wa taala ma ngay wax ca ayam ba maa salakakum fi saxar eh yéen mbokk yi lan moo leen yóbbee ci safara bi lenn la ñuy tontu sunu borom tabaraka wa taala xaalu lam nakun min al musallin ay ñun sunu borom ñun day bokkoon nañ ci ñi nga xam ne daawuñu julli walam nakun nut imul miskin ñun day daawuñu dimbali miskin wa kunna naudu ma al xaidin ay waay ñun dañu bokkoon ci ñi nga xam ne dañu topp bànneexu àdduna ak caaxaanu àdduna xataa atinal yaqiin ba mbir mi dikkal ñu nee na ñooñee day wa kunna wa kunna ñun day nu kazzib bi yawmi diin yàlla ñun dañoo weddi woon ne bésu yowmal qiyaam dana am bésu pénc bi bés bi nga xam ne yawma laa zilla illa zilluhu bés bi nga xam ne amul ker lu mooy keru borom bi tabaraka wa taala bés bi nga xam ne ca la ñu dajale jaam yi ñu nekk ci benn pénc bés bi nga xam ne mooy yawmal qiyaama bés bi nga xam ne ca la ñuy taxaw ci kanamu borom bi jinne yi wër ñu malaaka yi wër ñu nee na bés bii day jant ba dana ñëw tiim ñu ñun ñëpp da lakk ci ñun tàng ci ñun nee day ñun yàlla bokkoon nañu ci ñi ko wedd hatta atanal yaqiin ba musiba bi dugal ñu ñun yàlla day soo ñu mënoon may ñu delluwaat ci àdduna defaru wala ñu delluwaat ci àdduna xoo fekk àdduna yàlla lem na ko lem na suuf si lem na asamaan si mbokk yi pour ñu mucc si sunu borom tabaaraka wa taala nañu may tonte te jaamu yàlla subhaanahu wa taala taxaw sunu réew jàppale sunu njaboot yar njaboot gi te saxoo ci wax dëgg mbokk yi yonent bi sallallahu alayhi wa sallam waaye dafa ñëw ci moom ne ko yonent bi ndax nit day njaaloo mu ne ndax jullit dana njaaloo ndax nit day njaaloo yonent bi ne ko ah mën na njaaloo jéggalu waaye mu laajaat ko ne ko yonent bi ndax nit day fen yonent bi ndax jullit dina fen kon mbokk yi loolee war nañu jàngal ne ku bëgg tedd ci pencu yàlla ba da nga góorgóorlu jaamu sa borom lii mbokk yi am na yoo xam ne ñi ngi préparé waat yeneen mbokk yi lii lañ doon laaye biir ak yéen di ko ñeeñaan borom bi tabaraka wa taala fii ci Medina TV yàlla taxaw leen yàlla yokk leen defal leen sutura mbokk yi da ngeen ñu suivre ci émission yi ci kanam ñu ngi leen di wax ne sunu mujjanteel wax wa axiru daxwaana alhamdulillahi rabbil alamin wassalaamu aleykum wa rahmatullahi wa barakatuh صل على محمد السلام عليك يا